tey Thiès je pense que tey la nit ñi gën a mën a dëkk bëgg a dëkk si Thiès en tout cas que bu njëkk muy commune Thiès di commune Ndias di commune Kër Moussa di commune Mbour di beneen commune boo gis tey nit ñi tey leen si gën a sawar dëkk si nit ñi sax ñu ngi jógee Ndakaaru di dëkk si Thiès ay liggéey tamit ñu ngi ko indi souvent léegi da ngay ku ñëw ne la dama bëgg ubbi usine te Thiès laa ko bëgg ubbi si pourquoi parce que effectivement autoroute bi ñu def tax na léegi en 30 minutes 45 minutes nga yegg dañuy jógee fii jëm réunion Dakar jiitu fa ñi xam ne Dakar lañ jógee par exemple ñoom pourquoi parce que autour bi amna, donc loolu impact la yoo peut-être fii ak 10 ans peut-être lañ ko gën gis mais commencé na déjà maintenant sans compter également que projet yooyu du toujours autoroute direct toujours euh, usine boo xam ne day def courant mais parfois centre de santé lay donne, parfois parce de santé lay donne, parfois école lay ou wala lycée loolu yëpp loo xam lay am impact direct sur biir population ONG bu nekk tamit obligation la pour yow. Ce plan d'investissement annuel nga déposé ko déposé au ministre de l'intérieur également obligation de pour communiquer ses réalisations et nous, dans biir région bi dañ def ah, dañ ko defaraat mun naa wax comité boo xam ne day topp ONG comité régional comité départemental comité local pour xam ne liggéey top liggéeyu ONG nous avons leen top si ay documents mais nous avons top, sur terrain bi dañ di fekk que ñuy liggéeyee ñu xool lan la def je pense que loolu la loolu lañ bëgg a defaat léegi boo xam ne dañu may liggéey bu ñu dellu si si conférence départementale bi conférence territoriale bi données yi ñu manqué nii duñ ko amaat mais am na vraiment ñaari domaines yoo xam ne man kii na ma intéressé na ma mu gestion foncière bi parce que bëri na léegi quand même coow yu ñuy am si wàllu foncier waaw coow le président de la République wax na ko li muy recevoir si ay rapport si foncier moo ëpp vraiment si li xam ne rapport yi la muy recevoir donc problème boobu effectivement dans la région tamit sentir nañ ko

am na taux de classement bu am maanaa te ñu ngi constaté pression bi tam mi ngi am kaw si euh, kaw classement yooyu ñu ngi déclassé forêt yi lu bëri bëri ah il faut tam ñu xool léegi loolu tam lu ñu si mën a jógee bu ñu déclassé nañ defaraat feneen à côté lu day noonu ba xam ne lañ dootu ñàkk la ñu amoon dagg si garab fii ñàkk rattrapé nañ ko fële. pense que yu mat ak yu mel noonu bu ñu ko jéem a def dinañ mën a wàññi pression frontière bi si forêt yi ou bien alors lu ñuy dindi si forêt yi mun ko amaat feneen mais également même si biir dëkk yi bi rek si biir dëkk bi rek dañu constaté problème yu bëri bëri yu am si wàllu cadre de vie bi yoo xam ne war na tax ñu jóg si ba tax gën see taxaw